histoire nettali na sëriñ Abdul Xaadir mbakke taxaw ci jumaay Touba di jiite sëriñ Abdul Asis ne ci ginnaawam li xaamal ko kon nag bu ñu toogaatee fii sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdul Xaadir di ubbi jumaa Sidi Ahmed mu sëriñ Abdul Asis li xaamal ko loolu dundalaat na démb waaye wana it na lislaam ji benn genn kër rek la kon nee na kàddu yi nii rek lañ koy tënkee mooy sëriñ Bachiru mu Cheikh Abdul Xaadir mooy yëkkati ay kàddu ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ni ma ko baaxoo defee su noppee danañ jox sëriñ Cheikh moom sëriñ Aliou mi nga xam ne mooy wax ci turu njabootuk Cheikh Mahamadou Moustapha gépp su noppee danañ jox sëriñ Basirou moom Serigne Khadim Awa Ba su noppee danañ jox kàddu gi sëriñ abdul Karim Fafana suñu noppee ñu jox Serigne Modou Mahfouz su ko defee. sëriñ Moustapha daa ñaan ñu tëj jataay bi. kàddu yi ni mu ko déggee ñi ñi ko ci ginnaawam waroon nañ koo mën a yóbbaale. ndax ku ci wax rek yóbbaale nga sa morom. te ñëwoon na fi barki démb. mu ne xanaa tey kàddu yi muy wax rek ci turu Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa nee na mu tàmbalee nuyoo bi nag ci kilifaam yu tedd yii fi teew. mu ne xam na ne lim ko dana jafe ndax nee na ci kanam rek la xool te ñi ci des ci ginnaaw gisu leen mu ne kon day may ñaan rek bu ci tuddee ñaar wala ñett ñu yóbbaaleel ko ñi nga xam ne tegu leen bët can feete ko ci ginnaaw nee na ñu ngi tàmbalee siyaar bi ci kilifa jataay bi di sëriñ Modou Moustapha moom Cheikh Abdoul Ahad di ko siyaare bu baax jàpp ne lii ñuy wax ci turu sëriñ bi ci turam lañ koy waxaale di ci teg sëriñ Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir moom mi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko tànn yabal ko ngir mu jiite si julli gi tamit noonu mu koy defee di ko yabal fu baree baree bari nee na ñu ngi ñaanal it suñ kilifa yi fi teew yëpp sunu borom guddal seeni fan te dolli leen ak wér di nuyu Serigne Mbacke Dabassar moom mi nga xam ne xam ngeen ni mu demee fii ak sëñ fàllu moo sëñ Mahmoudan ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal gépp nag ci turu Serigne Cheikh Ibra ak sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdoul ak sëriñ Mahmoudan mu Cheikh Abdoul Ahad ak yoonu murid yépp ndax ñëpp a fi teew nee na kàddu yi di gudd ndax sëñ Cheikh Ali bu waxee wala sëñ Basiru wala sëñ Modou Mahfous mi nga xam ne mënees na koo jàpp dem jaayi ko mën nañoo yóbbaale kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñi fi teew ñëpp. di rafetlu jëf ji nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad di doomam def na ko. ndax jàkka. néegub yàlla la. wa annal masajida lillahi. falaa tad'u ma'a llaahi ahadan. waaye nag innama yaamuru masajida allah. man aamana billaahi wal kon jàkka. bu ñu ko tabaxee ba napp la ëpp solo. la solo. mooy fexe ba dundal ko. fexe ba li koy dundal nag. li koy dundal nag. mooy ña fay julli. mooy ña fay julli. la Serigne Touba ñaanoon ci mat Fawseyni. la Serigne Touba ñaanoon ci Matlabul Fawseyni. newal tuuf bitan. newal tuuf bitan. fiihi jamaatan tuqim. fiihi jamaatan tuqim. assalawaatil xamsa. assalawaatil xamsa. da ban yaa hakim. Cheikh Mouhamadul Mountakha mas na maa dégg ci làmmiñam mu ne. Cheikh Mouhamadul Mountakha mas na maa dégg ci làmmiñam mu ne. jàkka yi. jamono yi ni tëj jàkka ji. ca corona ca corona ba. mu ne bayit woowu. mu ne bayit woowu. suñu jàkka yëpp moo ko andi. suñu jàkka yëpp moo ko andi. ndax jàkka ji sëñ bi defoon ci maayomba. ndax jàkka ji sëñ bi defoon ci maayomba. te dindi ko sànni. te dindi ko sànni. moo jur jàkka yëpp. moo jur kon sëñ Cheikh Abdou sëriñ bi nee na mi ngi lay sant. ndax nit kat. ndax nit kat. dañ koy sant di ko gërëm. lam war a nekk bu ko defee. ca lam war a nekk bu ca nekkee di ko def. te képp kuy dàkk bëggug Serigne Touba. te képp kuy dàkk bëggug Serigne Touba. dara jiitu ci néegub yàlla. jiituwu ci néegub yàlla. ndax xam ngeen ne fu mu mas a sanc. ndax xam ngeen ne fu mu mas a sanc. bala ñuy defar néeg bi muy nekk. ñuy defar néeg bi muy nekk. jàkka ja la jëkk njëkk a defar. kon wax ji du gudd. nee na mi ngi siyaare itam mbokkam mu baax mi. di Sidi Ahmed si. teewal fi mbooleem njabootuk Cheikh Sidi Hadj Malick gépp ak këri diini yëpp sax nag xam naa wax ji day gàtt nag ndax kilifaam yi fi ne ñoo ma dàq wax fuuf gëm gën maa xam li ñuy wax rawatina nag sëñ Moustapha mii doon jiite nee na léegi rek maa ngi waxtaan ak sama mbokk mu ma jege mu ne ko sëñ Moustapha Géej la géej la ci biir yoon wi. mooy lépp la xam. mooy lépp la xam. kon kuy waxee ci ginnaawam. faw nga xool bu baax li ngay wax. Euh, comme alxuraan dafa wax ne. fa iza xudiyati salaatu. fantasiroo fil ardi. wabtaqu min fadlillah. donte nag lii ci la bokk. moo tax jarut guddal. wasalaamualeykum. wa rahmatullahi wa nee na mi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. di leen siyaare. ci bis bi. di siyaare nag sëñ Muntaxa bu baax. di siyaare mbooleem ñi ngànk diine lislaam ji ak xulafaaw yëpp. ak mbooleem tariixa yépp ci bis bu tedd bii. nga xam ne ummi muy liggéey bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdou mu Serigne Cheikh Ahmadou Gaynde ma defar na ko fii ci dëkk bii di Yaman muy jumaa ji ñu di ko ubbi. muy loo xam ne rek. dafay fekk baax. ndax Cheikhul Khadim. ak mag ñu baax ña. lii rek lañ defare réew mi. ci lañ tabaxee ci lañ tabaxee jikko yi. ci lañ boole it mbooloo yi. ci lañ defare it doomu aadama yi. bërëbu sunu borom. bërëbu sunu borom. kenn moomu ko sunu borom rek ko kenn moomu ko sunu borom rek moo ko moom. ndax ndax noonu ñu ko waxee wa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadaa. kon la tàmbalee ci seexul xadim. jaar ci doomam yu tedd ya. nga xam ne ku ba nga toogee. daa summeeku ci yow. di la wax. ngay def. lépp di lu rafet. jaar ko ci sunu waajur ya muy sëriñ ak taalibe. ak seex. ba yagsi yagsi fii. jaar fa mu war a jaar. kenn ku ne lay sa war a gar nga def ko nam mate. day mel ne loolee daa feeñaat fii tey. ci jëf ji nga xam ne seex Abdoul Ahad def na ko. kon nag. dama koy wax xëy na koy wax rek xëy na ci turu waa Daaru Xuddoos. ci turu Serigne Ahmadou Mokhtar. jiitalee Serigne Mountakha ci jiitalee Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha. yal na yàlla yàggal wéral ko. na ko yàlla yàggal te wéral ko. waaye nag eh, kër yi Serigne genn kër la. lislaam bépp genn buntu kër la. ñi ngi sant bu baax. sëñ Moustapha. ci jiite gi. di sant Cheikh Mouhamadul Bachir mu Cheikh Abdou Khadir. taxawal gi mu taxawal ci Serigne Touba ci wàllu ci taxaw gi nga xam ne taxawal nañu ko ci Serigne Touba ci wàllu gune. nii nee na nii rek la. ndax bu yàggut. lu tolloog ay fan rek. bari na fi. lu mel nii bari na fi. maak sëñ Moustapha Abdoulaye Karam mii. ànd nañ ci yu mel nii. ànd nañ ci yu mel nii. ci ay fan yu tegaloo. ci ay fan yu tegaloo. loolu nag ay mandarga rek la yu rafet. ay jumaa yu ñuy ubbi. ay jumaa yu ñuy ubbi. di fi jaamu yàlla. di fi jaamu yàlla. loolu. lu mat a rafet njort la. ci réew mi. ci jamono. ak ni jamono jaxasoo. kon nag. képp ku fi teew. ñu ngi lay sant ak foo fi mën a jóge di leen xamal ne li fi matoon a def Serigne Touba def na ko ak mag ñu baax ña nga xam ne ci seenu mbaax seenu tegtale seenu yar ci la yëf ya di jokkaloo ba si fii loolee nag lu mat a ngoy la lu mat sàmmoonteel sàmmonteel la ndigal yi di sàmmonte ak ndigali kilifa yi di moytu tere yi di jaamu yàlla di liggéey te booloo nekk benn fexe rek ba jàmm am loolu buñ ko defee dana baax lool kon ñoo ngi sant gannaaw waxtu wi daa xat ñoo ngi daal sant képp ku fi teew rek góor ak jigéen mag ak ndaw ci dëkk bi kon sëñ Cheikh ñoo ngi lay gën a sant bu baax. sa waa kër. di daaru Xuddoos. di waa kër sëñ Touba gépp ñi ngi lay sant bu baax. ci jëf ju rafet jii nga jëf. Euh, ndax bu ma ko waxee. xam naa ko bu baax. ndax maa yow am nañ fanweeri at. ci jëf ju baax ju mën a doon. ñoo koy bokk ànd. nekk ca di liggéey. mu ni jariñ guddi di ñu jariñ bëccëg ndax ñañ koy defal ak nam ko jare muy ci social muy ci am xel muy ci jëf muy ci yéene ba yéene ji agsi fii tey kon nag yàlla nañ ko yàgg a bu baax te yàlla boole ñu tuyaaba ji yàlla guddal suñuy fan uh, jox ñu wërsëg jàmm gu a euh, defe ci yàlla yoonu yoonu lislaam. mën a def ci yoonu lislaam wi ak wér gu ñu mën a jaamoo yàlla. ak wér gu mën a jaamoo yàlla. ngi siyaare bu baax. ñu ngi siyaare bu baax. sunu soppe. sunu xarit. Euh, di Sidi Ahmed si. bu baax a baax a baax a baax. ak gan ñi fi nekk ñëpp. te mënuñoo jaar ci seeni tur. kon nag. ñoo ngi yóbbante. sëñ Bass Abdou Khadir. ci sëñ Muntaxa na ko sëñ Cheikh Abdou Dey ñun mbokk yi sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko bu baax ci liggéeyam jëfam ci sëriñ Touba ak ci yéeneem ju rafet ak ni muy dimbalee doomu aadama yi kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Serigne seex ñu ngi lay ziyaara ñëw fi ci turu Serigne Mouhamadou Moustapha ibnu seex Sidil Mokhtar. ànd ak euh, sunu kilifa muy Serigne Cheikh Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Aziz ak Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Aziz ak Serigne Mame Cheikh Mbacke AIS ak sëriñ fàllu Sall di sunu jaam bokk ci njabootu Cheikh Mamadou Fadel waaye di soppe waa kër Serigne Bara kon ñu ngi yëkkati sunu kàddu di jégglu sëriñ Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di yëkkati sunuy kàddu ci kàddu yu gàtt. ci turu Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma mi nga xam ni moo jëf jëf ju réy nga xam ni dugg na ci taarixu yoonu murit dugg na ci taarixu lislaam ndax maamam Cheikhul Khadim bi muy sañ ci Touba ci Matlabul Fawzayni wajaalhu dëban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wal fii fiihi jamaatan tuqiim alsalawaati alxamsa da'aban yaa xakim loolu la sañte Tuuba kon moom fa tabaarakallaahu bu yàlla dogalee mu ñëw ci dëkk bii jëf-jëf jure ji mbokk yépp daja fi may tudd sëriñ Modou Mahfous mi nga xam ni mooy kilifaam di baayam di waajuram teew fi teewaayu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma waaye teew fi teewaayu soxna Baali Bintu soxna May sëriñ Modou Mahfous ñu ngi lay sant di la gërëm bërki dem ba seetaan nañ la nga wax ni Cheikh Abdoul Ahad yaa ko dugal école lu jiit école yaa ko yóbbu mu jàng xoraan ba bind kaamil may wax ni fan yi ci gannaaw gis naa ñu koy jéem a jaxase ak àdduna mook sunu waajur wee Cheikh dul Bassir waaye sëriñ Moutakhir Lo dañu daan wax ni alxuraan gàkk ci laa nanguwul waaye runge ku mokkalu alxuraan du ko def man bi may tare alxuraan benn baat laa jël ñu delloo ma ma dem jàngiwaat un an wa anhukum baynahum bi ma anzala allahu wala tattabi hawaahum waxsarhumoo an yaftinu ko an baadi ma anzala allahu ilayka googu laa jël indi ko ci bi ci kanam ñu delloo ma ni ma demal jàngi sëriñ Basiru mii mu sëñ Abdou Khadir xiraatuha kanzi wa izzi wa jaahi uniltu biha kaw ni ladallaahi sa sidqi loolu la maam sëriñ Tuubaa wax muy naafila alxuraan kon bu yàlla dogalee muy jàng alxuraan ba fab inna alladina kafaru saaun alayhim an sartum am lam tunsurum laa yuminuuna xatamallaahu indi wasaawoon alayhim om ansartu am lam tunzirulaahim innama tunziru man ittaba zikra ca suuratul yaasin loolu ku mokkal alxuraan mooy def loolu ndax ñoom ñii Serigne tubaa da leen rafatale alxuraan Serigne tubaa moo wax ni tam lii kan yadum sama moom sama boroom dama moom loo alxuraan moom gu sax dàkk Serigne Abdou Lahad bu ko sëriñ Serigne Modou Mahfous yare jàngal ko alxuraan mu jege fa mu jàngal ko xam-xam dugal ko école. mu dem jàngi ba yàlla dogal mu xam li doomu soxna di xam lépp ñëw te kenn masu koo gis ci kum séqal àdduna mu wax la wala mu jëf la wala mu tooñ la te yonente bi dafa wax ni doomu aadama man salimal muslimuna min lisaanihi wa yadihi si abdu loo ko loolu moo ko dal diggante ak jullit ñi du lar kenn ci ayam ci làmmiñam du lar kenn ci loxoom kon bu yàlla dogalee mu def lu mel nii sëriñ Modou Mahfous ñëw teew mu koy sant di ko gërëm sëriñ Sidi Ahmed di sunu waajur ànd ak sunu doomu baay bii di doomu sox sëriñ Maoda Seexu Omar bu sëriñ Maoda mu Seex Abdul Aziz Dabaax day delluwaat rek ca ca jokkulante yi nga xam ni sëriñ tubaa daana ko ci ay bind ak Seydi Alhaji Malick hadiyatun mujibuha tilaabu mahabbatun yaa ayyuhal xubbaabu ba mu jeex sëriñ tubaa tontu ko ni ko jazaakumu xayral wa xayral wa xayral jazal wahaabu wa fiya saful widaadi laa taraabu fa kayfa laa wal mustafal mujaabu imaamuna wal xitla laa nahaabu loolu mooy li doxoon seen diggante kon sëriñ Sidi Ahmed ñi ngi lay sant di la gërëm di gërëm sëriñ Fallou mu sëriñ Mouhamadan mu sëriñ ma Massamba teew fi ci turu sëriñ Mamor di xarifab sëriñ Massamba ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant Serigne Hamsatu mu Serigne Abdoul Ahad nga xam ne moom dama ko tuddee l'infatigable de la confrérie mouride du sonn du tay du yuqat saa su nekk lépp lu nit xewle bu ko yëgee dana jóg def ca lam ca war a def kon Serigne Hamsatu ñu ngi lay sant di la gërëm gis naa fi Serigne Ibrahima mu Serigne Fallou di ko sant moom ci taxawaayam Serigne Abdou mi ngi sant it Serigne Moustapha Abdoul Akram moom sunu waajur la sunu xarit la sunu soppe la. waaye di delluwaat di sant Serigne Bassirou Abdou Khadir mi nga xam ne yàlla moo ko boole ak moom mbokk gu nekk mbokk gu nekk day am xarit te Cheikh Abdoul Ahad yàlla moo ko boole sëñ Abdoul Serigne Bassirou mu sëñ Abdou Khadir Serigne Bassirou démb rek ñëw na fi ànd ak une forte délégation kon amoon na ngant ci teew fi tey waaye teewul dafa bàyyi itam yëpp ñëw bokk ak sëñ Abdou bis kon Serigne Bassirou sëñ Abdou mi ngi lay sant. waaye yow mbokk yëpp ñu ngi lay sant di la gërëm ndax damay wax ni ni nga fonk sa kilifa yii foo teew ci jataay ñun ñii di say doom dañ ñuy jàngalaat ak taalibe ci ni ngay doxee sa diggante ak say mag kon Cheikh Mahamadoul Basir ñu ngi lay sant sëriñ seexum sëñ Abdou Latif nga xam ni dafay teew ñaari cër jaam la ci sëñ Abdou di doomi ndeyam waaye teew fi ci turu sëriñ Moussa sëriñ Muntaxa kon sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu suñu rakk ji di monsieur le ministre Abdou Karim Fafana sëriñ baa koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ci yaatoom ci mbaaxam moom ak sëriñ daam Diop gis nañ leen fi waaye sëriñ Abdou def nga lu am solo salaasa tijaaratin laysa maaha xasaara ñetti commerce mi ngi nii yoo xam ni pertement du ci am ñu ne ban ak ban muy xiraatul quran jàng al quran wal wa iqaami salaat wal infaq fi sabilillah yàlla jàngale ci alxuraan inna alladina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura yow loolu la la sa maam rafaatale mooy tabax jàng alxuraan mooy sañc ay daara te Cheikh Abdou fa tabaarakallaahu ci loolu nga nekk bari na dëkk bi ci réew mi àll yoo xam ni gor nga ko def fa ay daara lii rek mooy li nga xam ni mën nañ cee teg bët te sëriñ Touba dafa wax ni naajaaniyal munzilu bil quraani xataa xadawtu mawrida zamaani sama borom subhaanahu wa taala ci ar quraan la ma wuyoo defal ma ci may mujj naanukaayu képp ku mar kon yow ci loolu nga nekk beneen bi ci des tabax jumaa mi ngi nii tey firnde ji mooy jumaa ji la ubbi te ko xool sëriñ tubaab bi mu sañtee Jurbel photo yii ngeen gis mu génn jamono yii lam ci doon def mooy pose pierre jumaay Jurbel kon ñun sëriñ bi jàngal nañu nan lañu war a taxawoo diine nañ lañu war a taxawoo lislaam bi ci des mooy al infaq fi sabilillah joxe ku mën a def lu baax nga ki dem mu benn waaye dafa ñëw ci man ni ma dama bëgg nga santal ma Cheikh Abdoul Ahad ma ni ko ci lan laa la koy santale mu ni ma dama amoon jafe-jafe wér gi yaram ñu waroon ma opéré ma ñëw wax ko ko mu ni ma ñaata la ma wax ko mu yëkkati ma mu yëkkati ko jox ma ko mbokk moomu di nit ku yàlla baaxal mi ngi may seetaan bu déggee li may wax dana xam ni moom moom wax ji jumaa nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem madinatul munawwara bi mu ñëwee ba dëkk bu ñuy wax xubaa yàlla dogal na mu wàcc fa tabax fa jumaa taxawu ko ba mu taxaw mu doog a continuer aw yoonam kon li muy tegtale innama yuammaru masajid allahi man amana billahi wal yawmil aaxir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yaxsa ila allah fa ada ulaika an yakunu min al muhtadin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ni man bana masjidan yabtaxi bihi wajha llahi bana llahu lahu baytan fi l janna bi ci des mu wax ni yabtaxi wajha llahi basarahu llahu lahu bil janna bu tabaxee jumaa ci àddina bu ëllëgee yàlla warlu na ko ay njënd ci àjjana bi bi waxee loolu saxaaba yi am benn saxaaba bu ñëw ni ko ñi nga xam ne am nañu yéene te yàlla dogal na seen kattan ak seen man-man àggul ci ñu tabax jumaa mu ne leen bépp jullit boo xam ne am na yéene tabax jumaa dese na ko ci suuf bu ëllëgee sunu boroom warlul na ko ay njënd ci àjjana kon Cheikh Abdoul Ahad lii nga def nii jëf ju rëy la yow nag fa tabarakallahu da nekk koo xam ni ku yàlla dogal nga am ay jikko yu rafet la ndax yonte bi sallallahu alayhi wasallam bi ko sunu borom yónnee innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq la ko yàlla yónni dañu yàlla damaa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi jikko yu rafet yooyu ne bokk na ci di jéggale wal kaazimiina al xaysa wal aafiina anin naas wallaahu yuhibbul na yow loolu la yàlla def ci yow nga nekk mbokk moo xam ni ku yaatu nga ku mën a muñ nga ku mën a jéggale nga ku mën a taloore nga te yàlla dafa wax ni ñi nga xam ni ñi ngi jëflante ak jaam ñi ñuy dégg ci gémmiñu jaam ñi lu leen di naqari ñu di ko muñ bu ëllëgee danaa ci yokk seen daraja te yow fa tabaarakallaahu yàlla defal na loolu te xad xaw xawmun wa maatan makaarimuhum wa ansa xawmun wahum binnaasi amwaatu am na ñoo xam ni faatu nañ bu yàgg waaye ba tey ñi ngi ñi ngi nettali seeni jëf yu baax ñi ngi wax seen teddu ngay jikko waaye am na ñoo xam ñi ngi ci biir société bi di dund waaye ñoo ñi faatu ñooyam ndax amuluñu société bi benn njariñ du ci wax ju baax du ci wax ju rafet du ci jëf ju rafet te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na al muslimu man salima al muslimuna min lisaani wa yi waxoon naa ko danaa ci dellu siwaat mu ne julli dëgg-dëgg mooy jullit bi nga xam ne du wax lu ñaaw du jëf lu ñaaw du ko yëkkat di ko jëmee ci mbokk jullit te Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma ci loolu nga nekk bàyyi nga xel ne imaamu Saafi yi waxoon ni wajaal kunuusaka wajaal bi na kunuusal ardi min zahabin nee na day doomu aadama yi dañu àdduna jàpp nañ ni li nga xam ni mooy kopp mooy mooy xéewali àdduna mooy wurus waaye yow doomu aadama bi wajaal kunuusaka min birrin wa imaanin na nga def sa sa sa trésor muy baax ak ngëm yàlla yow nag baax yooyu fa tabaarakallaahu lamboo nga ci ay jikko yoo xam ni moo fi indi mbokk yëpp moo fi indi sëñ daam Diop ministre moo fi indi ñi sant Boussa gis naa fi sëriñ Sidi Makhtar Ka di sunub jaam di mbokk di ko yàlla baaxal sëñ Sam Boussa ngi nii toog waa Muxaddamatul Xidma ñi ngi toog ñi ngi dëkkal dëkk bi ñi ngi toog te yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ni mazala jibrilu yusini bil jaari hatta zanantu annahu sayuwarrisu nii yàlla yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na jibril daawul di ñëw ci man di ma dénk ak dëkkandoo ba ma jàpp ni ba ma fi jógee dëkkandoo moo may dond yow na fa tabaarakalaaw dëkk bii nga dëkkal muy tuubaa Yamal sa waajur Serigne si Ahmadou Mbacke sancoon ko lim ko sance moom ci jàng ak yar ak dimbali ñu fi nekk ndax damaa dégg sëñ Assane salaam mu wax ni Serigne Cheikh Mbacke bi mu génnee àdduna nee na sunu borom won na ko ay njënnam ci àjjana bi mu laajee ni njënn yi lu tax Serigne Cheikh am ko ñu ne ko julli mayu ko ko woor mayu ko ko de ndax loolu suñu borom ko ci pour xool ko li ko may dafa tukki woon ci réewu tubaab yi gis fa koo xam ni day wax day def waxtu wu xëyee suba génn di doxantu romb ko mu nekk ci mbalit mi loolu ñuy wax buujumaan rek ci terme bi di wut lu mu lekk mu def ko lu man ñetti fan ba ñeenti fan ba juróomi fan sañ si am moom ak doomam moom ak ñaari doomam ak soxnaam sëriñ si Ahmadou Mbàkke daal koy laaj ni ko yow yónnee woolu ko génn ba tolloo moom woolu ko mu ñëw mu ne ko li ngay def nii pour lan la mu ne ko wéradiwu ma dofu ma dara jàpp ma ñàkk moo waral may def nii sëriñ Cheikh yëkkati alal jox ko ñu jëndal ko ci kër defu ko ngir ab yéefar la da ko def ngir doomu aadama la ndax yàlla moo ne wala xad karam naa ba nii aadama teral googu nga xam ne yàlla moo teral doomu aadama fab lépp luy dox ci kaw suuf te matan dagan dagana a lekk yàlla terale ko doomu adama mu teral jëmm jooju ngir yàlla sëñ Assane Salam wax ni ba mu faatoo ci la ko yàlla terale jëf jooju Cheikh Abdoul Ahad nag bi mu sancee bi ma waajuram sancee dëkk bi rafaatale ko mu ñëw fi li fi nekke mooy dimbali waa dëkk bi taxawu a dëkk bi di leen jàppale di leen dimbali di leen taxaw loolu mooy li am solo kon sëñ Abdoul Ahad mi ngi sant mbokk yëpp di sant taalibeem bu tudd Pape nga xam ni mbokk la di taalibeem di soppeem di xaritam ànd ak moom ci lépp kon mi ngi sant waa dëkk bi di sant mbokk yi fi ñëw yëpp mbokk yi nag li ñu def am na solo ndax li ñu yàlla boole mooy wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham yàlla dañ na ma ragal man yàlla mi nga xam ne maa dogal ci yéen mbokk deret te boo lëgee danaa leen ko laaj nan ngeen ko sàmme lii mooy ak mbokk bu sa mbokk xew lee Tuubaa sori na soriwul tey la ajjuma bari na ñoo xam ne si ni ca jumaa ya dend ak seen i kër fa lañu baaxoo di jullee waaye ñi ëpp ci ñoom bàyyi nañ seen jumaa yooyu tey ñoo bokk yow bis bi li ko waral mooy sa jikko yu rafet li ko waral mooy sa mbaax li ko waral mooy sa fonk doomu aadama li ko faral sa mooy sa ndawloo doomu aadama ndax njaboot gii ñu Serigne tubaa booleel ñu ay taalibe ëpplewul leen dara sëriñ tubaa ci barkeem la ko yàlla tere la ñuy liggéey di ñu jox di fab seen doom di ko tudd di ñu ko tuddee di fab seen doom di ñu ko jox di ñu ko jébbal ñu ngi koy fab di ko yóbbu seeni i daara bari nañ ñoo xamante seen i doom a ngi ci daaree kilifa seen baay amul ko ko jàppal watiir wala amul ko ko jàppal masinu ji loolu lépp Serigne tubaa dañu ko terele kon taaliba yooyu nañ leen bàyyiwaat xel gën leen a jàpp gën leen a nawloo gën leen a jox cër yow fa tabaarakallaahu Cheikh Abdoul Ahad bàyyi nga loolu xel ma ñëw ci sëriñ Moustapha Abdoul Khadir Mbàkke ñëpp a ngi lay ñaanal. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. mu ne mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. noo ngi tàmbalee sunuy kaddu. mu ne mi ngi tàmbalee ay kaddoom. yu cant. di kaddu yu cant. di kaddu yu ñaan. jëmale ko ci sunu kilifa. jëmale ko ci sunu kilifa. di sunu sëriñ. di sunu sëriñ. di ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké. di ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké. xafidahullahu wa raahu. yàlla ko suñu borom sàmm te aar ko. sëriñ bi ci boppam. nee na sëriñ bi ci boppam. bi Cheikh Abdoulaye defee liggéey bi ba mu noppi. bi sëriñ Cheikh Abdoulaye defee liggéey bi ba noppi. dafa dem ci moom. nee na dafa dem ci moom. xamal ko ne ko liggéey bi àgg na. xamal ko ne ko liggéey bi noppi na. seni bi moo jàpp bis bii. nee na sëriñ bi moo jàpp bis de. jox ndigal rakam ju tedd ji di sëñ Mouhamadou Moustapha bu Cheikh Abdoul Khadir. joxe ndigal rakam ju tedd ji di Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir. ngir mu war a ñëw julliku. ngir mu war la ko war ci tànnanga lépp moom sëñ bi def na ko. la ko war ci tànnanga lépp def na ko. yabal la jarbaatu boppam mu ñëw mu ñëw moom itam teewu fi. yabal di sëriñ Cheikh. di sëriñ Cheikh. kon nag sëriñ Bachirou Abdoul Khadir. kon nag Cheikh Mamadou Bachir mu Cheikh Abdoul Khadir. yow mi yor kàddu sëriñ bi. yow mi yore kàddu sëriñ bi. yore kàddu yoon bi. yore kàddu yoon bi. ñoo ngi lay ñaan jot lu sunuy cant ak sunuy ngërëm ci Cheikh Mahamadul Muntaxa. nee na daal ñu ngi lay ñaan nga jot li sunuy cant ak sunuy ngërëm ci Cheikh Mahamadul Muntaxa. loolu suñ borom mi man lépp. mu yàggal ko fi lool. mu yàggal ko fi lool. te may ko wér. te may ko wér. ba lépp lu mu yéene liggéeyal maamam ju tedd ja. ba lépp lu mu yéene liggéeyal maamam ju tedd ja. yéene ko liggéeyal julli ji. yéene koo liggéeyal julli ji. yéene ko liggéeyal diine islam. yéene koo liggéeyal diine islam. mu def ko dama ko bëgg. mu def ko dama ko bëgg. ci barke Cheikh Khadim. ci barke Serigne Touba. ñoo ngi sant mbokk yi fi teew yëpp. nee na ñu ngi sant mbokk yi fi teew yëpp. jël cant gi teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadou Moustapha mu Cheikh Abdoul Ahad. di gi nag di ko teg ci mu Cheikh Abdoul Ahad. muy kilifa jotaay bi. muy kilifa jotaay bi. mu jot leen ko mboolem mbokk yi ak njaboot yëpp. mu jot leen ñu ko mboolem mbokk yi sunu mbokk mbokk mii nga xam ne. di sant sunu mbokk mbokk mii nga xam ne. teew na fi di Cheikh na fi di Cheikh Sidi Ahmed. ibnu Cheikh Alxaj Abdul Aziz ibnu Cheikh Abdul Aziz teew fi ngir jëmmi boppam teew fi nag ngir jëmmi boppam teewal fi sunu mag alxaaji Malick teewal fi sunu mag alxaaji Malick mii taawub Cheikh Abdul Aziz mii taawub Cheikh Abdul Aziz mu boole ko ak doomam mu boole ko ak doomam kon sëriñ Sidi ñoo ngi lay sant bu baax kon sëriñ Sidi ñoo ngi lay sant bu baax di rafetlu bu baax sa taxawaay di rafetlu bu baax sa taxawaay nga jot nga jottali ñu ci cant yëpp nga jottali ñu cant yëpp Seydil Hadji Malick ci Cheikh Sidi Hadji Malick ak sëñ Aboubacar Al Mansour ak sëriñ Aboubacar Al Mansour ak mboolem njaboot ak mboolem njaboot ndax Touba ak Tiwaawan ndax Touba ak Tiwaawan du yaari kër genn kër la du yaari kër genn kër la ci coobare sunu borom ci coobare sunu borom moo def Seydil Hadji Malick moo def Cheikh Sidi Hadji Malick ak Cheikhul Khadim ak Cheikhul Khadim ñu bokk ci kër ñu bokk ci genn deret loolu jëfi sunu borom la loolu jëfi sunu borom la ñu bokkati diine islam bi. ñu bokkati diine islam bi. mosu ñoo tàggoo ci lenn itam. ci mosu ñoo tàggoo ci lenn. ànd àndin wu rafet. àndin àndin wu rafet. kon nag ñoo ngi lay sant bu baax. kon ñoo ngi sant bu baax. di sant itam. di sant itam. kilifa yi Cheikh Abdoul Ahad. kilifa yi Cheikh Abdoul Ahad. tàmbalee ko ci wajuróom ba. tàmbalee ko ci wajuróom ba. di si Cheikh Ahmadou Mokhtar. ñëwal na fi boppam. ñëwal na fi boppam. tey jii njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gépp teew na. tey jii njabootu sëñ Moudou Moustapha gépp teew na. di siyaare bu baax itam. di siyaare bu baax. sëñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad. sëriñ Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke. moom it da ko war ci bis bi lépp def na ko. moom it di ko war ci bis bi lépp def na ko. xam na ne Cheikh Abdoul Ahad Cheikh ko kenn. xam na ne sëriñ Abdoul Ahad mii Cheikh ko kenn. ñoo koy sant bu baax di ko gërëm. ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm. di sant mboolem mbokk yi fi teew. di sant mboolem mbokk yi fi teew. sant mboolem kilifa yi bàyyi koo ci yeneen turuq yi teew fi. di sant mbooleem kilifa yi bàyyi koo ci yeneen tarixa yi te teew. ndax tarixa yëpp tabarkalaaw teew nañ. ndax tarixa yëpp teew nañ. Cheikh Abdoul Ahad mii nag. Cheikh mii nag. sunu xol sedd ci moom bu baax. sunu xol sedd ci moom bu baax. ñun di ay waajuram. ñun ñii di ay waajuram. ndax bi mu ñëwee ci dëkk bi. ndax bi mu ñëwee ci dëkk bi. sanc fi kër sanc fi kër la mu njëkk a def la mu njëkk a def mooy def fi jàngukaayu alxuraan ci biir kër gi mooy def fi jàngukaayu alxuraan ci biir kër wut ku ko man wut ku ko man tak andi ko ci biir kër gi ko ci biir kër gi ko makkaan wutal ko makkaan la war ci moom lépp it di ko def la war ci moom lépp it di ko def mboolem bokki taalib yi bokki jullit ci dëkk bi mboolem bokki taalib yi ak bokki jullit ci dëkk bi koo ci xam ne que am nga doom ju mat a jàng ku ci am doom ju mat a jàng nga indi ko fii ci biir këram nga indi ko ci biir këram mu leen xamal na mu gën a rafet mu leen di xamal na mu gën a rafet lépp it mu mu gàtt mu gàtt mu gàddul ko boppam te lépp nag mu gàddul ko boppam dara waru ci kenn loolu nag jëf la joo xam ne loolu nag jëf la joo xam ne genn jëf féetewu ko kaw genn jëf féetewu ko kaw ndax dañoo wax ne ndax dañoo wax ne bala ngaa tabax jaamukaayu yàlla jàkka bala ngaa tabax jaamukaayu yàlla muy jàkka na nga tabax fu ñuy jànge alxuraan na nga tabax daara ñu ñuy jànge alxuraan mu nag loolu la fi njëkkati te loolu la fi njëkkati bu mu jógee ca loolu ba mu jógee ci loolu mu def fi néegub yàlla bii mu def fi néegub yàlla bii def ko ngir jëm yàlla def ko ngir yàlla def ko ngir muy ndigalu seexul xadim ngir def ko it ngir muy ndigalu moo moo moo doon ak bëgg-bëgg ndax loolu moo doon bëgg-bëgg sëñ Tuubaa kon nag bokki taalibe yi kon bokki taalibe yi ak bokki dëkkandoo yi ak bokki dëkkandoo yi mel na ne Cheikh Abdou wàccoon ak yéen mel na ne waa dëkk bi de Cheikh Abdou wàccoon ak yéen wutal na leen fu ngeen di jàng fu ngeen fu seen i njaboot di jàng alxuraanul karim wutal na leen fu seenu njaboot di jàng alxuraanul karim te la ca la ca war lépp it moo koy def te la ca war lépp mu gàddu ko di ko def te tegu ci kenn lenn te tegu ci kenn lenn wutal leen barab bu ngeen di jaamoo yàlla wutal leen it barab bu ngeen di jaamoo yàlla muy néegub yàlla bu toll nii muy néegub yàlla bu toll nii kon nag kon nag dafa mel ni dafa mel ni kaddu gi Seydina Muhammad waxoon kaddu gi nga xam ne moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne kullukum raain ne kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati wa kullukum masulun an raiyati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kenn ku ne ab sàmm nga kenn ku ne ab sàmm nga te kenn ku ne te kenn ku ne da nga teew fi suñu borom da nga teew fi suñu borom mu laaj la la nga doon sàmm mu laaj la la nga doon sàmm ak na ko doon sàmm ak na ko doon sàmm kon nag loolu Cheikh Abdoulaye xam na ko bu baax loolu Cheikh Abdoulaye xam na ko bu baax te bàyyi na ci xel bu baax te bàyyi na ci xel bu baax kon Cheikh sëñ Moustapha kon sëñ Moustapha yow mi fii sëñ bi yabal nga jiite julli gi yow mi fi sëñ bi yabal nga jiite julli gi ñu sàkk ci yow ñoo ngi sàkk ci yow nga ñaanal Cheikh Abdou Lahad nga ñaanal Cheikh Abdou Lahad ba li mu yéene liggéey ci yoon bi ba li mu yéene liggéey ci yoon bi yéene ko liggéey ci diine ji yéene ko liggéey ci diine ji yéene ko liggéeyal sëñ Touba yéene ko liggéeyal sëñ Touba suñu borom bàyyi ko fi suñu borom bàyyi ko fi may ko wér may ko wér ba mu def ko nam ko bëgg di sant mbokki daaru mu wax yëpp di sant mbokki daaru mu wax yëpp ndax xam nañ ne Cheikh Abdou seen doom ak seen jarbaat ndax xam nañ ni ci loolu Cheikh Abdou seen doom ak seen jarbaat alaaji maam Thierno Mbacke alaaji maam Thierno Mbacke ñëw na fi bii guddee na fi lool ñëw na fi bii guddee fi lool ñaanal ko ci barab bi ñaanal ko ci barab bi sant ko gërëm sant ko gërëm ko sëñ Mbacke sëñ Abdou Rahman sëñ Mbacke sëñ Abdou Rahman moom it ñëw na fi moom it ñëw na fi ak moo ne mbokki Darou Rahman ak moo ne mbokki Darou Rahman yi sëñ Fallou moom sëñ Mahmoudan Jobe sëñ Fallou moom sëñ Mahmoudan Jobe teew na fi teewal fi waajuram teew na fi teewal fi waajuram sëñ Mamor di sëñ Mamor ñii xalifa sëñ Masamba ñii xalifa sëñ Masamba teewal fi njabootu sëñ Masamba yëpp teewal fi njabootu sëñ Masamba yëpp kon nag bokk yëpp teew nañ kon daal mën naa ne bokk yëpp teew nañ kon nag ñoo ngi sant ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm it Abdou Karim Fofana di gërëm it Abdou Karim Fofana ndax wala rëy na ci Cheikh Abdou ndax wala rëy ci soxna Cheikh Abdou te ku ne xam ne ni taalib it Cheikh Abdoul Khadir la. te ku ne xam na ne taalibu Cheikh Abdoul Khadir la. Cheikh Moustapha mii mooy buntam ci kër Sëñ Tuubaa. Cheikh Moustapha mii mooy buntam ci Sëñ Tuubaa. jàpp na Cheikh bi jàpp na lu rafet. te jàpp na Cheikh bi jàpp na lu rafet. kon nag ñoo ngi koy sant di ko gërëm. kon ñoo ngi koy sant di kanam sëriñ bi di ko gërëm bu baax. di ko ñaan jot suñu gërëm. di ko ñaanal ñaan ñëpp ñu suñu gërëm. kilifa yi nag lu tax. lu tax. wajaahidu. wajaahidu. fii sabilihi. fii sabilihi. laallakum. laallakum. tuflihun. tuflihun. jaalana allahu min almuflihin. jaalana allahu min almuflihin. njortu rafet na ci. nee na njortu rafet na ci. yaakaar am na ci. yaakaar am na ci. nuyu bu baax. nuyu bu baax. Serigne Mouhamadul Moustapha bu suñu moom suñu baay Cheikh Abdoul Khadir. léegi bi na léegi bi mu koy ziyaare. bi mu sëlmalee. bi mu sëlmalee. naa ko naagu wuñu de. nee ko naagu wuñu de. waaye julli gi yaakaaru na de. waaye julli yaakaaru na de. njortu rafet na ci de. sunnaana. ndax nee na sunnaana. na mu war a mel mel na ko. na mu war a mel mel na ko. kon yàlla du def lu dul def la mu war a def. kon daal yàlla du def lu dul rek la mu war a def. te mooy nangul ñu. te mooy nangul ñu rek. te insha allahu taala nangu na. te insha allahu taala nangu na. bi mu nee Allahu akbar. nee na bi nga nee Allahu akbar. baatu baay Cheikh Abdoul Khadir lay dégg. nee na baatu sëñ Abdoul Khadir daal la doon dégg rek. wallaahi alazim ñu duggee ci fatiha. nee na bi nga duggee ci fatiha. ak sa ak suuratul jumaa bi. ak suuratul jumaa bi. ba bu julli gi àgg. ba ni julli gi àggee. moom mi ngi doon wax ci am xelam ne ndax baa du ma baamtuwaat. allahuma laa adurru. allahuma laa adurru. moo tax ma ne yàlla yàlla fayal suñu jiital ne yàlla yàlla fayal sunu maam ju tedd ja. nee lii lépp liggéeyam Cheikh Ahmed Bamba de. moo tax bokk moo tax bokk yi. sëriñ basiiru Xaadim Awa Ba wax na moom sëriñ Xaadim Awa Ba wax na ko léegi. lii na lii lañu am de. leneen lu ñu topp. leneen lu ñu topp. mën nañu fàggu lu ne. mën nañoo fàggu ne. waaye lii ñu nee na waaye lii nga xam ne mooy sunu alali bopp dara gënu ko. te ëllëg dinañ defal mag ñi konkuraan bi. te nee na ëllëg kat danañ taxaw ak mag ñi leeralaat leen. yal na yàlla guddal fanam wax na ko léegi. Serigne Modou Mahfous yal na yàlla guddal sa fan wax nga ko léegi. ca xadis ba ca xadis ba. kullukum raa'in. kullukum raa'in. te kul ëllëg. sàmm bu ne. bu ne. danañ la laaj. danañ la laaj. lañu la dénkoon. lañu la dénkoon. noo ko doon sàmmee. noo ko doon sàmmee. nga war a def nga def compte rendu. nga a def nag compte rendu. lii yi bàyyi. yi mooma mooma budul moom budul moom xaw ma leneen luy moom ah xaw ma sax leneen luy moom te mooma nag sax te surtout jamono bi ñuy dund bii ñuy dund li ñu war nekk rek menn mbooloo moo xam ne dañuy jàppante doon kenn bàyyi rek. mënuñu bàyyi rek. waruñu bàyyi rek. waruñu bàyyi rek. ay kuréel. ay kuréel. di minorité. di minorité. ne la leen neex. ne ca la leen neex. ñun ñi nekk ci dëgg. ñun ñii nekk ci dëgg. ñu bëgg ñu def face. ñu bëgguñoo def face. di leen seetaan. ñu di leen seetaan. jaaduwul warul. jaaduwut warut. te du am. tey du am. incha allahu taala incha allahu taala. bu ñu yàlla nattu woon. bu ñu yàlla nattu woon. ñu fekki leen. ñu fekki leen. ànd ak ñoom. ñoom. yàlla indi fi ñeneen. yàlla indi fi ñeneen. ñu saytu liggéeyu. ñu saytu liggéeyu mag ñi. waaye yàlla bum waaye nag loolee de yàlla bum ñu dal. kon Cheikh Mouhamadul Moustapha. kon Cheikh Mouhamadul Moustapha. ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi lay nuyu. di la ziyaarewaat di la ndokkeel bu baax di la ñaanal yàlla. fan wu gudd waa ànd ak wér. ak kaaraange. ak kaaraange. yàlla. yàlla. boole ñu ko defal ñun ñëpp. yàlla nañu ko yàlla boole nag defal ñun ñëpp. masawu itam ci coono yi. masawu ci coono yi. bu baax a baax a baax a baax. nuyu bu baax. nuyu bu baax. siyaare bu baax. siyaare bu baax. mu bàyyi Abdoul Khadir. bàyyi Abdoul Khadir. mi amee baatu xalifa bi. mi amee baatub xalifa bi. Serigne Mouhamadul Mountakha. Serigne Mouhamadul Mountakha. xafisahullahu. xafisahullahu. wa ataala umrahu. wa ataala wa nasarahu. ci mbooleem mashruucaat yi mu am. ci mbooleem mashruucaat yi am. yal na yëpp àgg. jiite ko. mu jiite ko. ñëpp topp ci. ñëpp ci ginnaawam. fa tabaarakallah waaye itam waaye itam amee baatu yoonu murit yëpp amee baatu yoonu murit nag yëpp man bu ma nee man nag bu may wax al muridu kuy julli dugg rek dugg nga ndax mooy ki kat mooy ki namm aw yiw ki bëgg a fàggu aw yiw ki bëgg a fàggu aw yiw ci àdduna ak ci alaaxira kon boo gisee ku yàlla baaxe baat ba jàppal kooka fu mu yegg daa fa yegg. fu mu yegg rek yow da fa àgg. lu mu am daa ca mos. lu mu amit da nga ca mos. kon sëñ Bachir ñu ngi ñaanal yow itam. ñoo ngi lay ñaanal yow itam. fan wu gudd ak ànd ak wér. masawu la coono. masawu la coono. yàlla wattul la boppam. yàlla yàlla aaral la boppam. yàlla aaral la boppam. yàlla na ko yàlla def. yàlla na ko yàlla def. léeg ma ne. léeg ñun ñëpp sopp nañu maam Cheikhul Khadim. nañ maam bëgg nañ bëgg nañ ko. waaye bu ñu xër nag ba. waaye nag bu ñu xër ba. ñun mbokk taalibe yi. ñun mbokk yi. ñun bëgg ñun soppe yi. ñun soppe yi. bu ñu àgg ci xërte. bu ñu àgg ci xërte. ba bëgg dóor suñu dënn. ba bëgg dóor suñu dënn. ne li ma am ci sëriñ bi. ne li am ci sëriñ bi. njabootu sëriñ bi amuñu ko. njabootu sëriñ bi amuñu ko. loolu loolu daa munta ne moom. nee na loolu daa munta ne. xayru <laughs> nee na loolu munta nekk bu leen ko wax. mënul nekk mënut nekk. sëriñ bi sëriñ bi. duñu palmaan duñu ba ñu tàkk ba ñu tàkk mu rombal mbànd njaboot gi mënut a ne. munta ne moom. yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañ ko yàlla fayal. fa tabaarakallaahu nuyu sëriñ Hamza. nuyu sëriñ bu sëriñ Baye Abdoul Ahad. li sëñ Basiiru Xaadim Awa ba seede ci moom dëgg la. te ñun ñëpp la war nag. nuyu Serigne Mouhamadul Mahfouz. léegi bi ma agsee mi ngi ma naan sang bi. léegi bi ma agsee mi ngi naan ma sang bi. càng gi ko man maay bi. na mën na ko soppi naa kat maay jaam bi léegi. di siyaare bu baax. di ndokkeel bu baax. sa kàddu yi rafet na mat na matale na fa tabaarakallaahu nuyu itam sëriñ Basiiru mu sëñ Xaadim Awa Ba ziyaare ko masawu ko ndokkeel ko fi may tëje nag Cheikh Abdoul Ahad Baye Abdoul Ahad jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke jërëjëf samaam Cheikh Al Hadj Malick daan na wax daan wax ne. olof dafay muslu. olof dafay muslu. ci mujjee pusa mu réer. ci mujjee mu ne man Malick li may muslu. man Malick nag li may muslu. fekke gu nuroog wuute. fekke gu nuroog wuute. dalu la. dalu la. yàlla bum la dal. yàlla bum la dal. yàlla bum ñu dal itam. ñu dal. lii masruuc bu la. lii day bu rëy. lu ñu war la de. nee na te nag lu ñu war la de. dégg naa ñuy wax ni. dégg naa ñuy wax ne. wërsëgu jàmbur. wërsëgu jàmbur. ku cay wajaaseer. ku war koo gërëm. war a borom wërsëg wa. kan la. kan la. sunu maam Cheikhul Khadim. sunu Bamba. allahumma. allahumma yi nee na ci la jàkk yeeg jumaa yeeg daara yi lépp ame te lañ ci xam lu tuuti te nee na lañ ca xam lu tuut la. ndax ñoom kat yàllaa leen nëbbal boppam fa tabaarakallaahu kon daal li am solo Cheikh Abdoul Ahad yàlla na la yàlla dundal lii mbokk yu tedd yi seede ci yow ñaanal la ko ak ñi lay ñaanal ak ñi sahril xayb yàlla na yàlla nangu lépp te ful ko def ko muy gudd fan def ko muy wér def ko muy kaaraange nuyu sunu frère nuyu sunu frère ministre Abdou Karim Fafana ak délégation bi nga àndal sant ko gërëm ko ndokkeel ko bu baax ak mbooleem nag sama mbokk yu baax yii ma fi fekk di samay kilifa di samay nee na bàyyiwul kenn rawatina waa dëkk bi waa tund wi waa réew mi yëpp ci barke jataay bi yal na yàlla def jàmm ci réew mi kaaraange ak ndalte yàlla bu mu nekk suñ mujjug daje danaa dégg ci Cheikh Sidi Asi Malick Maodo muy wax ne mu ne njaboot day ñaanal kilifaam na ñuy ñaanal Serigne Mouhamadul Muntaqa mu ne lu tax sa kilifaa ngi boof ci ay xal sa kilifaa ngi boof ci ay xal mu di ko lakk mu di ci ay dég mu di ko jam mu di ko jam te ñemewu onk ngir njaboot mucc rek nee loolu mooy seen toogaay yàlla na yàlla guddal fanam dolli ko wér jotal leen nuyoo ziyaare ndokkeelu xalifa ba seen mbokk seen soppe Serigne Babacar Sy Mouhamadulil Mansour ak i rakkam Cheikh Sidi Asi Malick Maodo Serigne Babacar Abdoul Aziz Mouhamadul Mansour Abdoul Aziz ñoom ñëpp a bëggoon a ñëw waaye lii kenn war sa des waaye ngant rek a des yal na yàlla fay leen. yàlla na yàlla sàmm leen maa ngi jégalu nee na wallaahi nartoon a jël kàddu ndax kaddu yi jot a jib yóbbaale nañu ñun ñëpp géew dañoo bég rek ba xam li ñuy wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alladina kafaru awliyaahum taaguut yuxrijuunahum